di tuub di jégalu bu baax ci kàddu yi dongali Moustapha Ndiaye la moom Serigne Mouhamadou Lo bokk ci commission bu ñu naan collation en même temps bokk ci superviseur bis waaw bu fekkee commission collation la mooy ñi nga xam ne ñoo féete ci wàllum naan yi mooy yu sedd yi nga xam ni ñoom ñu koy faral di woowee zéro décret ci ñenn ñi moom équipe la boo xam ni at mu ne daanaka ñi séq liggéey rek ñoo ko séq ndax euh, ñooy faral di jënd glace gi ñooy faral aussi di dem jënd naanu yi. bu ko defee seral ko ci bërigo yi ngir mën koo séddale jaam ñi ci ci waxtu wu nekk ndax daanaka bu añee dañuy seddale ba fii ngoon daanaka daanaka lépp lu fi nekk ci lu sedd dañ koy jox gan ndax bis bi looloo ko tax a ko defee ñu xam ni barab bi ñi ci ëpp daanaka ay taalibe lañ ay wóolëre barab bi tënku ci ay taalibe ci ay ay daayira yoo xam ni daa bokk ci ay gox yu fasanti ko bu ko defee at mu nekk bu bis bi dañ koy waajal waajalin woo xam ni. Euh, fa ku ci nekk fa nga nekk ca daayira dafa am ay jaayante ay sas yoo xam dañ koy dugal ci bis bi sas yooyu nag la ñuy dajale jëbbal ko haddiya sëriñ bi bu ko defee loola la ñuy jël di ko jëfandikoo ci ay jumtuwaay lu jëm ci wàllu nag yeeg ak naanuwaay yu mel nii donc jooju la ñuy la ñuy jaayante yooyu daal moo tekki addiya ji ñu koy dugal ci ci ci yu mel ne naanu yi daal. waaw bis bi moom ñu ngi sant yàlla bu baax di sant sëriñ bu baax di xam ni at mu nekk rek day yokk. ndax boo seetloo mbooloo mi nga xam ni daa nekk ci baas bi wax dëgg yàlla wuute na ak wi fi nekkoon daaw donte daaw bëri woon na te it ku ne xam na ni ak période Covid bi yaakaaroon ni mbooloo mi dana gën a yées li ndax moytu gi nga xam ni jàngoro joo xam nit ñaa ngi koy moytu waaye daa gën a fooxu daanaka bisub daaw bi kon ñi ngi sant yàlla bu baax amuñ ci benn rëq-rëq wax dëgg yàlla. changement yi ñu ci gis mooy yokk ci fànn wu nekk ndax bis boo xam ni bañ koy tàmbali ci ab gàtt lañ ko tàmbalee muy am xar. mu mu mu mu jaar ci ay ay ay gëléemam ay nag ak yu mel noonu kon bis bi yokku na ci fànn bu nekk ci plan organisation yi aussi bu njëkk daanaka yenn ci ay taalibe yi ñooy ñooy jaayante ngir nangam waaye bis bi boo seetloo at yi at at yi ñu nekk daanaka bis bi ci at lañ koy wàcc di réunion réunion yoo xam ni daanaka ay weer yoo xam ni dañuy réunion ngir jëmale bis bi ñoŋ kanam kon ak yokkute lañ am ci fànn wu ne te borom wax dëgg yàlla. day bis boo xam ni day bisu sant Serigne Touba mu di ak àllar boo goo xam da koy faral di jox sëriñam ni mu ko faral di baaxoo waxee kon yokkute daal lañ ci gis ci fànn yëpp wax dëgg yàlla. di di dénk rek mbokk taalibe ni ko sëriñ bi soññee euh, ñu gën a euh, jaayante ci durus mi ca baas ba na ko na ko ñëpp di waxee waaye ñun ñi nga xam ne dañoo féete ci wàllum naan mi moom xam naa loolu yi dañu koy jéggal waaye xam naa di sant mbooloo mi yëpp di sant ñëpp ñi nga xam ne ñoom la séqal liggéey bi. ñu nekk ci wàllu collation di ñoo xam ni dañoo neex a liggéeyal ndax werante du ci am daanaka dara du ci am te it mi ngi jaar yoon liggéey baa ngi jaar yoon jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah anillahu mubarisi wa hanni xalbasa daani rëyi mu inda dawmin lahu bima ixna an tasawmin يسر للمدى لدى لبر ولي من خاد لي ما خاب عن كل ولي لي خاد البدر الأسودا من سأسها الواسي والأسودا يقود لي أيس أكون الله تبصير لا إله إلا الله والجنبا لله قد وصلت عند قلوى وسأنني أما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البهور كفت حياتي يا المدور علمني الأليم عند شاخراد بما يشاء وكفوني الكافراد لم ينوني